bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim mbokki Oustaz TV mbokki Muntazam Voyage mbokki Feltir ar yi mbokk yi nga xam ne ni yëpp ñoom ñooy topp Oustaz TV ak euh, spécial aj 2023 noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar sama nuyoo bi yàlla na fekk ñëpp ci jàmm ñi bëgg ñëw ci dëkk bi ñëpp yàlla yàlla yombalal leen ko incha allah ba ñëpp mën fee ñëw marhaban <laughs> yéen a ngi gis noonu ujaa ji ñu ngi ci buntu hôtel bi di sa sajjal madina fi ñu dal gannaaw sunu kullu ziyaar ca baqiyan lañ jëm tey demoon nañu Uhud demoon nañu Qiblatayn demoon nañu Quba waaye tey ñi ngi jëm Baqiya gannaaw ba ñu jëm ca sàng bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaa ngi noonu ci buntu hôtel bi di waaj a génn di fas yéene jullee ji tàkkusaan ca rawdu ba incha allah bu nu sëlmalee dem Baqiya jóge fa dem ziyaara ji yenent bi sallallahu alayhi wa yàlla yàlla nangul na sunu ziyaar bu nu yeggee Baqiya incha allah nañ ko daan defee danañ fa joxe message yañ fa daan joxe fàttali ña fa tëdd ña fa nekk di ñu tedd ñu màgg ci lislaam ci njabootu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam incha allah bu ñu fa yeggee danañ def ak fàttali bu ci yàlla àndee Adja ñu ngi ziar Adja bul mer ah. <laughs> message bu ma joxoon Madina bul mer la may fàttali fu toll bul mer waaw fii kenn kenn kenn du mer <laughs> macha allah ajaratu. delloo ziar macha allah. aywa ila baqiya incha allah <laughs> ilal baqiya ñu ngi ziar ajaratu. macha allah marhaban ñu ziar ilal baqiya <laughs> incha allah <laughs> incha allah ahlan ahlan ahlan vers baqiya ah <laughs> vers baqiya delloo ziar Adja Maymuna vers baqiya sa France mun dana ma dañoo bëri ujaaju étranger ah sénégalaise étranger alxaaji ñi ngi ziar alaaji alaaji technicien yow Ahmad dem na léegi tey téléphone bi yow laa koy jox technicien bi yaa fi wutu Ahmad <laughs> tabaarakallah an sa xarit an sa copain <laughs> <laughs> maram ak biraan yu góor yi nekk ci ci aj gi ah duñu duñu duñu ànd duñu dàqali ko macha allah yàlla yàlla nangul ñu suñ ziar moom it ci cent francs yi la bokk tabaarkalla <laughs> alaaj masata alaaj masata ngoog <laughs> jaxate jaxate ajaa <laughs> bi moo war a fay ah. moo tardé aywa mu ngoog bismillah ñu dem mu ñu ngi noonu di jóge ko sajjal madina fii mooy hôtel bi ñuy dal année bu nekk muntasam di fi dalal ay ujaajam nañ leen ko waxee woon ca ba ñuy njëkk a ñëw wane ne sag waxtu julli mën nga dox dem ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee fa loolu nag euh, mbégte la ndax bari na ñoo xam ne nii fa ñi dal ay kilomètres yi kilomètres la dox wala ñu jël oto ngir ñëw julli si wala yàlla dimbalee nga dal foo xam ne waxtu julli bu ne soo doxee juróomi minute dugg ci biir jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa loolu mbégte mu kawe kawe la tabaarakallah yàlla yàlla saxal ko yàlla yàlla nangul nu kon ñu dem ba yegg ak jàmm wéyal liggéey bi gis ngeen xaram baa ngi nii ci sunu kanam jumaa yenent bi fi nu jógee ni ngi hôtel Sajal Madina ma nga nee ci sunu kanam dem leen jaajaa ngi noonu jéggi di ñëw otel baa nga ne ngeen di seen mooy sajjal Madina hmm? nii la ñuy doxee ñëw jéggi dox ni jubal ba ci rawdu bi direct la ñuy dugg ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tawféex la yal na yàlla nangul ñëpp incha allahu taala jumaa ji nu jëm nañ leen ko waxee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fa julli genn julli junni julli lañ la koy bindal mhm. junniy julli mille julli ci genn julli ngay amee ci jumaa ji boo fi jullee tabaarakallah ku ji nag nañ am occasion waxtu julli bu ne fajar ak tisbaar ak tàkkusaan ak fépp ñu mën a dox julli tabaarakallah biir jumaa jàngook eh, bërëb bi jullikaayu jigéen ñi la ne biir jumaa ji nag mooy miir bi lay dugal ci biir jumaa ji Muntazam Voyage seen porte 328 la moo lay dugal ci jumaa ji 328 moo nekk ne la ngeen di seen boo jógee ko ci hôtel bi 328 moo lay dugal ci biir soo duggee rek entrée bi yëpp ay jullikaay la biir jumaa ji nag moo nekk ne la ca biir a biir tabaarakallah fii jigéen ñi ñoo fiy jullee fii jigéen ñi danañ fay jullee ca kaw a kawit jigéen ñi danañ fay jullee ñuy jullee foofu ci jigéen ñi rek ñooy mën a am accès bu ziyaara yeneent bi jotee ñu ubbi leen ñu mën a dem ziyaara ji mais ñu jullee côté bi yoon wi mënuñ fee duggee ngir dem ziyaara kon mi ngi noonu ñu ngi dox ni yoon wi ñu jëm moo nu yóbbu ci côté Baqiya bi Baqiya bi ca ginnaaw nag la nekkee waaye dañu bëgg a jege baqiyan mën a julli tàkkusaan ba noppi bu ñëw noppee nag soog di mën a dem defi suñu ziyaara insha allahu taala dafa ma léegi jublu leen penku bañ a ñaan bañ a jublu rawdu bi ma ne ko ñun bu ñuy jublu ci biir jumaa ji li ma waxee moom xam naa mu xam ne kii wax moom am na lu mu xam mu ne ma ah kon seex nga kon waa léegi puus leen tuuti rek kon ngeen taxaw mooy li ma leen di wax noonu bi ñuy waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi gëm ne yonent yàlla Muhammad daal da nga koy romb nuyu ko rek jàll amul leneen looy def moo indi it ñu ne jigéen mu ñëw di ziyaare armeel dafa xaraam dafa wa xaraam ah armeel pour départ ci njëlbeen gi yonent bi daf ko tere woon ñëpp góor ak jigéen mayu ko woon góor mayu ko woon jigéen mu jigi la ëlbatiku ne maa leen tere woon ngeen di ziyaare armeel waaye léegi may naa leen dee leen ko ziyaara ndax da leen di fàttali àllaaxira ba mu ko mayee waxul góor ñi kese laa ko mayam jigéen ñi daf ne maye naa ko rek hadis boobu bokk na ci liñ sukkandiku ne jigéen kon mën na ziyaara ji armeel gannaaw bi ndax li góor soxla ci fàttaliku àllaaxira bu ziyaara bàmmeel la jigéen soxla ci fàttaliku àllaaxira bu ziyaara bàmmeel ka tere woon góor ña ziyaare bàmmeel tere ko jigéen ña moo xëyaat ne def leen ko te waxul góor ñi kese laa ko fay ñi koy xaraamal nag dafa am benn xadis bu ñëw ne yàlla rëbb na jigéen ñiy ziyaara ji bàmmeel mais xadis boobu dañ koy jël nga boole kook bële waxoon ne leen tere naa leen ngeen ziyaare ji bàmmeel góor ñeeg jigéen ñi yëpp ndax danga yem ci xadis yooyu kese déedéet da ngay continuer ndax am na yeneen i xadis yu bokk la bii taral nii lu mayeeg jigéen mën a dem ci armeel ziyaare ko am déet loolu moo tax masala mi laataa ñuy ñëw ci armeel yi ñett wax a ci dëkk ñenn ñi dañ ko xaraamal ñenn ñi dañ ko sib ñenn ñi dañ ko daganal gannaaw ñun lu ñuy def la kon war nañoo leeral li ñuy def fuñ ko teg laataa ñu koy def ñi ko daganal madhabu abu hanifa ci la ñu bokk ñenn nag ci madhabu malik bi ñu tënk bi ñu sukkandiku ci lañu ñu bokk ñenn nag ci madhabu malik sib ko ñoom ci sib la ñem yegguñ ci xaraamal ñenn ñi ne dagan ñenn ci mazhabu Shaafi'i ñoom it daganal ko benn riwaaye bu bàyyee ci Ahmad bu bàyyeekoo ci Ahmad ibnu Hanbal daganal ko lan mooy seen lay ñoom ñu ko daganal ci boobu la ñuy ñëw mooy yeneen bi moo ne woon na haytukum an ziyaaratil qubuuri fa duuruha tere woon naa leen ngeen ziyaare bàmmeel léegi dem leen di ko ziyaare ñu ne ba ko teree mayewaat na ko bi mu ko mayee waxul ñii laa ko may bàyyi ñële kon ñëpp a ci bopp beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa dem na ziyaare ji bàmmeelu yaayam yaay Xadija ba mu ko ziyaare jee mu jooy ñi mu jooy mu ne sàkku naa ndigal ci sama borom pour jéggalul ko yàlla joxuma ci ndigal ma sàkku pour dem di ziyaare ji bàmmeel bi mu jox ma ci ndigal fa zuurul qubuura kon dee leen ziyaara ji armeel fa innaha tudakirul mawta day fàttali dee ñu ne yeneen bi lii mu wax ne dee leen ko ziyaar ne day fàttali dee waxul góor bàyyi jigéen mais day fàttali dee moo tax mu ne dee leen ko ziyaara te ñëpp a soxla pour fàttaliku yaay Aysa umul muminin mi ñu leen wax léegi ne néegam lañ denc yonent bi bi mu faatoo te mi ngi ci armeel yi tëdd moom yaay Aïcha dafa ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma demee ci sama bàmmeelu mbokk ma wala bis dafa jugee ci bàmmeelu ca armeel ya nee na saxaaba bi nettali ma ne waaw yaa umal muminin min ayna aqbalti foo jugee mu ne ko min qabri axi abdirahman ibn abi mu ne ko maa ngi jógee ko ci sama bàmmeelu mbokk ma Aboubacar doomu Seyna Aboubacar la mu ne ko waaw xanaa yonent bi lu dafa tere woon jigéen ñi ñu dem ci armeel yi yaa Aysa ne ko kaana naha summa amara bi ziyaaratiha yonent bi tere woon na ko waaye mujj gi digle ne pour ñu dem ziyaara ji ko maanaam ñi koy tere ñoom tere ga lañ jot waaye bañ koy mayee ñoom jotuñ ko loolu moom ñu tere kon waa Màkka gi ak waa Madina ci ñooñu lañ leen di boole ñoom tere ga lañ jël bàyyi digal gi yaay Aysa moone ne yenent bi tere woon na ko waaye mujj gi maye na ko mujj gi maye na ko saxaaba bi ko laaj laaj bi moom bi koy tere la déggoon foo jugee mu ne sama frère laa demoon doon ko ziyaara ji ci armeel mu ne ko waa yenent bi xanaa dafa tere woon jigéen ñi ñu dem ci armeel ziyaar mu waa tere woon na ko waaye mujj gi joxe na ci ndigal pour ñu dem ziyaara ji yaa Aysa ba tey wax na ne ndax du ma leen wax lu ma jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko aha kay ca biir xadis ba mu ne bu ma demee ci ziyaara ci armeel yi lan laay wax loolu la laaj yonent bi su ma demee ci armeel yi di ziyaara lan laay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko quuli asalaamu ala ahli diyaari min al muslimina wala min al muminina wal muslimin wa yarhamu llahu almustaqdimina minna walmustaqirin wa inna insha allahu bikum la laahiquun maanaam su fekkoon ne jigéen ñi dem ci armeel ziyaara dafay nekk lu xaraam bi mu ko laajee bu ma demee di ziyaara lan laay wax danaan ko déedéet yéen jigéen ñi bu leen fa dem waaye dana ko boo demee waxal lii soo demee ci armeel ya waxal kon li ñuy wax ci armeel buñ koy ziyaare yonent bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam noonu nga ci mën a ñëwee ba mu nekk yu baree baree bare beneen bi nga xam ne bi ci gën a sax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romb benn bàmmeel am ndaw su toog di jooy ndaw su toog ci bàmmeel yi di jooy yonent bi ne ko ittaqillaaha wasbiri ragalal yàlla te nga muñ ragalal yàlla te nga muñ bu doon ci nun la sunu waxin danaan ko waay dimbale ma rek ah. li ma dalal a dalu nga naan ma ragalal yàlla tamit xamuloo ne boobu yeneen ci bee wax ak bi mu waree ginnaaw am ku ne ko mais euh, est-ce que xam nga ki doon waxal mu ne ko déedéet mu ne ko Seydina Mouhamad mu ne ko Seydina Mouhamad men moo doon wax ak mu ne ko waaw naam. waaw di gis ngeen situation yi heure bi ñëw moo tax day tombeeg jullee ngi bëgg a jot waaye liñ leen doon wax rek yonent bi bi mu waxee ndaw si ndaw si dem ñu ne ko yonent bi nga doon waxal sallallahu alayhi wa sallam dafa dem di ko baalu mu ne ko déedéet muñ ci première instance bi bi mu amee bi mbir yi amee ca ngay muñee doo bàyyi saalit wala wax loo war ba noppi soog muñ xadis boobu liy wane ne jigéen mën na ziyaare bàmmeel daf ko fekk ñu ngi ci bàmmeel bi jooy li wax rek mooy ragalal yàlla te muñ waaye waxu ko jigéen du ziar bàmmeel kon mën nga ziare bàmmeel waaye doo nekk loo xam ne mooy def women women women salam en face ñu janoo rek mu gaaw ñu ngi janoog Bakhia dañ di nuyu ñaanal leen aywa la ja des sa waxtaan yi danañ ko mottali ci yeneen jotaay asalaamualeykum ahla diyaari min almuminina والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومستقرين وإنا إن شاء الله بكم للاهقون يغفر الله لنا ولكم nuyoo la rek ñaxal leen xamal leen tamit ne leen ah, yéen ñi nga xam ne yéen a tëdd fi a dëkk ci kër jullit ñi kër jullit ñi lañ tuddee armeel këru jullit ñi ñaanal leen yàlla yàlla yërëm leen ñiñ fi njëkk a suul ak ñiñ fi mujj a wax leen tamit ne leen bu soobee yàlla danañ leen fekk si leen wax la mooy ñaan kon nag la yal yàlla yërëm leen yéen ñi jiitu danañ leen fekk waaw yal na yàlla nangul waaw bërëb la bu barkeel bu temps amoon danañ leen gën a waxtaanal ñu ñu ci tëdd ñëpp waaye daal soxna yeneen ci bi yëpp mën nga ne fii lañ tëdd Xadija ak Maymuna rek a fi tëdd Adi dama nga màkk Maymuna mi ngi diggante màkk ak Madina mais màkk la gën a ay doomam yeeg ma nañ dox ay doomam yeeg sëtëm yi ñu bari fii lañ tëdd Fatima fii la tëdd yaay Aïcha fii tëdd soxna yëpp fii njabootam ji tamit ku dul Ibrahima fii la tëdd Zeynab fii tëdd Roqiya fii la tëdd Umu Kalsum tamit fii la tëdd Abdallah doomam fii la wala Abdallah mu tëdd Màkka mook Xaasim ñoom ñaar ñoo tëdd Màkka ñook seen yaay Xadija ñoo bokk armel yu ñu nekk imaam Malik mi ngeen di dégg imaamu daaril hijra fii lañ mat na fukki junne ak yu teg ci saxaaba yi ci ay njabootu yenent bi ci ñi nga xam ne ñoo topp ci seen ginnaaw fukki junne ak nàngam man nañ ko ñoo xam ne ñëpp ñu ngi tëdd fii ci bàkkeel yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na bàyyi ba guddi jot mu ñëw fii ci armeel yi nekk fi ab diir ngir jéggalu leen yàlla daan na ko armeel yi tamit képp kuñ fi suul yonent bi nee na yomal xiyaam ci ñi muy ràmm nga bokk da nga dekki bokk ca ña muy kenn du la audité kenn du la xisaab kuñ fi suul waxoon naa ko daaw ne ku ne suuf yëpp a yem ma ne leen bii de bokk ci suuf yëpp a yem bii de bokk ci waaw mhm. waaw am na ñu ngi suuf bi am na ñu nekk Bacchane. am na yeneen am na li fi nekk juróom Bacchane. hadis ma doon wax léegi def na juróom-ñaar fukki junne la lim soixante-dix mille personnes yi ñuy sélectionné ñoo xam ne dañu leen di jëlee ci armée ñoom kenn du leen audité. juróom-ñaar fukki junne yëpp dañ ñaan leen ajjanaa ngoog dem leen ngeen ñoom ñëpp ci lañ bokk ci ñooñu Ousmane Ibn Affan saxaaba boobu fii lañ ko denc boo demee ci biir armeel yi fi ko denc moom xam nañ mandargaal nañ wax naa leen Seydina Aboubacar mi ngi nekk ak Yonent bi Seydina Omar mi ngi nekk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ousmane mi ngi ko suuf fii ci Baqiya kan moo des Seydina Ali kan moo xam Ali ko denc ah? fuñ ko denc Makka déedéet Ali ma nga Kuufa ma nga Irak Irak fa lañ ko denc ñoom ñëpp ñu ngi ci ñoom ñëpp a ngi ci bi Halima mi nampal yërënti bi dégg ngeen turam bari na turandoo Sénégal Halimatu Saadiya mi ngi ci armel yi fi ko denc Xasan mi nekkoon sëtu yonent bi fii lañ ko denc ah Xuseynu la ñu faat ca Karbala moom Irak lañ ko faatee bàyyam Ali dañ ko bóom moom moo tax mu des foofu ku ñu wax Abdurahmaan ibnu Muljam moo ko bett muy julli ji fajar di woo nit ñi mu yor gobar cor gobar gobar goo xam ne poson la ci def am la sëñ Moussa Ka naan fa muy jullee fajar la ibnu maljam boccib gobar bett ko daal ko jam waaw fa fajar la ibnu muljam boccib gobar bett ko daal di ko jam jam na ko tooke ji des ci yaramam faatuwul ca saasa ñu jël ko yóbbu këram jàpp ibnu muljam mi ko jam indil ko ko mu wax moom laata muy faatu waaye bokk na ca lam dénkaane woon lu am solo laataa muy faatu moom Seydina Ali dafa dénkoon doomam Xasan ak Xuseyn ne leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla waaye maa ngi leen di dénk ngeen taxoo di julli maa ngi leen di dénk dénk ngeen di joxe azaka waaye maa ngi leen di dénk ngeen di jéggale maa ngi leen di dénk ngeen di supporter mer maa ngi leen di dénk ngeen di jokk mbokk maa ngi leen di dénk ngeen di am sago ci ku leen xamul ngeen am sago ci moom maa ngi leen di dénk ngeen jàng seen diine ba xam ko waaw maa ngi leen di dénk ngeen fonk alquran di ko jàng maa ngi leen di dénk ngeen rafetal dëkkandoo maa ngi leen di dénk lu baax dee leen ko digle lu bon dee leen ko tere waaw loolu la leen dénk dénk ko seen benn fereel bu tuddoon Muhammad ibn Hanafiya yooyu la mu def ne ay ndénkaane laataa muy faatu kon jam nañ ko mu nekk këram coor nañ ko mu nekk këram ba wax ay soxlaam yëpp ba dénkaane yi muy dénkaane soog di faatu gannaaw Irak la faatoo am na sax ñu wax Afghanistan fa ko denc waaye li gën a wér te gën siw mooy Irak lañ ko denc loolu moo tax dencuñ ko fii ci armée mais ku moom ñeent saxaaba yi ñett ñëpp ñu ngi fii tëdd armel yu barkeel a barkeel a barkeel ñu baree baree bari ci ay nitu yàlla ñu ngi fi tëdd ñu bari ci ay borom yi xam-xam ñu ngi fi tëdd doyoon na sëkk rek ñu ne yeneen bi doomam yëpp ku dul kenn fii la tëdd doyoon na sëkk ci ngëneelu armel soxnaam yëpp fii lañ tëdd ku dul ñaar Xadija mu nga faatoo Màkka moo tax ñu denc ko laataa yeneen bi ñëw ma fekk na mu faatu yeneen bi fu mu tollaan da koy tagg di waxtaanee mbaaxu xadija ba yaay Aysa mujj gi fiir na ci waaw yow sa màgget moomu yàlla remplaceel na la ko xale bu ndaw foo toll naan xadija xadija yenent bi nag ne ko du suul jëf nag waaw ah, du ma sakk jëf <laughs> ah Aysa dafa fiiroon tabaarkalla tabaarkalla tabaarkalla mu ne ko kooku bi ma ñëpp weddee moo ma gën moo ma gëm bi ma ñëpp weddee yaay Xadija ma gëm moo ma gëm yëkkati alalam yëpp jox Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko nag ku mel noonu li ma ji ci teraanga mënu ma ko fàtte moo tax fu mu toll da koy waxtaane fu mu toll rek daf ko doon waxtaane armel armel yañ ko suuli daan na dem di ko fa ziyaara moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen kiñ suul fi ñuy tuddee Sarif benn zone la bu nekk balaa nga yegg Màkka boo paasee masjid Tan'im mooy Maymuuna Maymuuna nee nañ moom la yonent bi mujj a jël ci soxna gannaaw yonent la faatu waaye dafa bi muy laata faatu dafa dénkaane ne bu faatoo dafa bëgg ñu ko fi ñu ko doon kéetale ak yeneen ko yeneen bi doon kéetale jafeelam ci la toll bañ ko suul ca laataa ngay yegg màkka foofu la ko yeneen bi kéetalee moo tax foofu lañ ko denc ku dul ñaar ñooñu ci soxnaam yi ñëpp ñu ngi sa biti yàlla ñu leen yàlla fayal yàlla bu mu doon sunu mujj ziyaara ci bërëb bi yàlla yàlla nangul nu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim